alsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin wa ala alihi wa asxaabihi altayibiin altahirin wa man tabiahum bi imaanin wa ixsaanin ila yowm ddin laqin lisaani waxlulan minhu alcuqad wajcalhu zaakiran wa shaakiran abad zayin fuaadi wa lisaani ya jamil بزينة القرآن واجعلني نبيل واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا إخوة الكرام نقرأكم التحية من عند الله مباركة طيبة نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yu tedd yi ñoo ngi leen di nuyu ginnaaw bu nu sante sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonentam bu tedd ba di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu màgg bu tedd bi di mu jumaa di jiital ci nuyoo beeg ziyaar bi alxalifa faxrul umma alcheikh mohammadul muntaqa mbakke alxalifatul aam li tariqati almuridiya di ko ñaanal sunu boroom defal ko tawféex tawféexuk dund te may defal ko kiimtaanuk dund akuk wér mu yàgg fi lool ba mbooleem naal yi nga xam ne si naalal na ko lislaam lépp yépp naaral ko sëriñ bi mu eggale ko ba tàmbaliwaat yeneen te ànd kook taalibe yépp naka noonu di ñaanal mbooleem kilifa yi diine yi nga xam ne si ne ñu ngi ci réew mi te njabootug diine nekk ci seen kanam ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp sunu boroom sàmm leen te dëgëral leen ginnaaw loolu delsiwaat nañu tey niñ ko baaxoo di ko defee ci waxtu wi ci bis bi saa yu jotee ñu jukki benn tomb ci tomb yi nga xam ne si ne dafa soxal dund gi ñu ñëw ngir fàttalante ci tey nag ñu ñëw ak benn tomb boo xam ne musul dañ di doon loo xam ne jamono da koy soxlawoo waaye nag dafay tollu léeg-léegi jamono yoo xam ne si ne day gën di war ñu di ci fàttalante ngir yu baree bare yooyu xew di ko tudd walla mu di ca aju te léeg-léegi muy mel ne fàtte gu ñu fàtte loola mooy sabab coow yooyee di ci am wala mbir yooyu di ci am walla mànkit mànki ya cay am yooyu nag tomb boobu nag tey moo di almaratu wa dawruha fil mujtama jigéen ak làcc wi nga xam ne seeni moom la war a bay ci tool bi di toolu xeet wi wàllu jigéen jigéen ci boppam mooy kan ak ab rolam ci société bi loolu nag mbokk yi ngir ñu xam jigéen lan mooy aw laccam wala lan mooy ab rôle bu mu war a def war koo taxawee ci société bi mënuñ koo wax lu dul ne dañoo xam kan mooy moom jigéen ci boppam mooy kan jigéen it ngir ñu xam mooy kan du yomb lu dul ne dañoo dem ci làmp bi làmp bii nga xam ne si mooy làmp lislaam te mooy alquran ak sunna ci lañ mën a delluwaat ci diiney lislaam mën a xam kan mooy jigéen ak lan mooy warteefam loolu it mënuñu koo xam lu dul ne dañoo xam fan la lislaam fekkoon jigéen bi muy ñëw buñ ko xamee ak fi nga xam ne fi la ko lislaam indi ak lan lañ ko xañoon ak lan la ko jox ci lañuy ñuy xamee dëgg-dëgg kan mooy jigéen ci la ñuy xamee it lan mooy rôlam bu dee ngir ñu delluwaat ca la jiitu woon daañu fekk ne ci jamono yu yàgg civilisation yu yàgg yi yu xeetoo lool am na taxawaay boo xam ne moom lañ taxawee woon ci kanam jigéen te moo ne yooyee civilisation de ñoom la ñuy dàkkantale ak nite ñoom lañuy ñuy dàkkantale ab xam-xam ñoom lañuy ñuy dàkkantale ne fa la xel juddoo fa la ay tëralin yu rafet juddoo ci anam bu nekk ñu di leen ca tagg ci ak insaaniya ak imanité tey ñooñee ñoom fan lañ nekkoon moo xam ci Yunaan la ca Grec moo xam ci Europe la walla feneen ak feneen bu ci européens yi rek bu njëkk ci atum juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ndaje woon nañu daje bu rëy ci Europe te defe woon ko ci fi ñuy wax France tey te loolee congrès booba la ko waraloon mooy doon xool ndax jigéen nit la walla du nit loolu lañ doon càmbar ci jamono booba ci at yu yàgg. ak bu dee nit la ndax am na ruux am na ruux ak ginnaaw bi ñu saxal ne dëgg la jigéen am na ruux dañ doon sax bu di ndax am na ruux wala bu dee am na ruux ndax ruuxam moo góog góor ñooy am ca mujjantal ga la ñu daje lañu la ñu dëppoo ca mooy jigéen am na ruux waaye gis nañ ne ruux googu ruuxam googu mbindeef la moo xam dañ ko bind muy ki gën a suufee ci mbindeef yi te ñu bind ko it ngir lan mu war a taxaw ngir servir góor ci ay xemmem loolu loolu ruux googu looloo ko tax a jóg ñoom noonu lañu jàppe woon loolu lañ gisoon ci seen ndaje moom kon loolu sëñ mbokk yi nekk na xalaat yu suufe lool ak tey ñoom fi ñu bëgg indi te ci di ñu jàngal kan mooy jigéen ak ne dañ koy jox ay xàq ak ay yelleefam ci ñoom eggoon nañ foo xam ne si ne jigéen amut lu woon sañ-sañu lekk lu góor di lekk bu dee ak ndawal mu yàpp jigéen sañu koo lekk ndax amul droit ci lekk ko ndax dara jàmm eggutoon foofu bu dee ci ñi nga xam ne si ne ñooy grec yi ñoom dañoo séddale woon jigéen ay xeet ay xaaj ñoo xam ne si buñ bëggee toppatoo seen yaram rek looloo ko tax a jóg ak ñoo xam ne si ne ñu bëggee def dab seen bànneex rek ak ak fo ak caaxaan ñooñu moo leen looloo leen tax a jóg ak ñoo xam ne si ne dañ leen a chariaal nga xam ne si ne ci seeni luwaa ak seeni yoon ya yoon tëral ca ñoom ca lañ dëpp woone ñooñu moom bu ñu bëggee am njaboot wala bëgg am doom ca ñooña ay doon nga xam ne ay ñett ay xeet lañ doon foofu lañ tegoon jigéen nga xam ne soxlawuñ ñoom ci ñoom dara du da du waxtaan du jëflanteeg ñoom du bokk ak ñoom i xalaat du jox leen seen xaq ci wàllu bànneex wala leneen ak leneen waaye daal ñoom pour rek am ak njaboot goo xam ne gu légal lay doon gu doon seeni ga seeni yoon tëral looloo koy tax a ju ñeneen ña nag fo ñeneen ña ngir seeni yaram te moo ne de ñooñu la ñuy wax ne ñooy boroom xalaat yi am na ku ñuy wax Aflaatuun di ku mag ci wàllu xel ak xalaat ñu bari di dellu ci moom da doon wax ne bakkani góor ñi nga xam ne si ne ñu ñàkk ñu yées lañ góor ñi nga xam ne si ne solo góor ñi nga xam ne ay ragal lañ góor ñi nga xam ne dañuy yàq ci kaw suuf ci ñoom lañ bindee jigéen boobu xalaat la amee woon keneen ci ñoom ne maanaam musiba mi gën a rëy ci kaw suuf kiris bi gën a mag ci kaw suuf mooy nekkuk jigéen ci kaw suuf nga xam ne jigéen da ko doon misaal ne moom dafa mel ne garabuk tooke la sajara masmuuma goo xam ne siine day rafet ci kaw waaye su ko picc yi lekkee rek dee loolu borom xalaatkat bu mag ci ñoom ñu di ko wax suquraat moo waxoon loolu foofu la gise woon ne moom jigéen foofu la nekk waaye boo dikkee it ci romain yi loolu nga fa doon fekk boo dikkee ci Hind waa Hind loolu nga fay fekk ñoom doon jàppe jigéen ab jaam ci kër boroom këram jigéen bu boroom këram faatoo kenn du ko dencaat jigéen bu borom këram faatee faatoo amul droit dundaat li yàlla ci moom rek mooy gas suul noonu lañ ko gise woon boo demee ci siin tey nga xam ne dañuy wax ne lépp lu rafet wala lu baax siin lañ ko liggéeyee waaye déedéet ar rahma wal adla moom jóge foofu kooku moom mawjudatun fil islaam yërmandeeg maandu kooku moom si ci lislaam lañ ko liggéey waaye liggéey woon ko siin ñoom itam ci tolluwaay boobu lañ tolloon góor jigéen bu ko boroom këram amoon na sañ-sañu rey ko saa su ko neexee jigéen boroom këram amoon na sañ-sañu saa yu ko tuumaalee ci leneen loo xam ne luy jegee la ak may yàlla la dee ko àttee lu dul dañ koy rey ak donte am nay tegtal yu wane ne loolu amut waaye korom borom këram loola la ko tuumaal rek ab àtteem mooy dañ koy rey waaye li ñuy dikk rek kon moo di tënk tuuti rek donte duñ mën a indi lépp waaye daal li ñuy xamle daal ci gàttal mooy jigéen moom lislaam a ko jox gëddaam lislaam a ko jox xàqam ci xeet yu bari ni mu fa tëdde woon mëne su koo leeral mëne su ko indi ngir ñu xamle dëgg-dëgg fi fi mu ko fekkoon waaye lislaam moom bi mu ñëwee ñu ne jigéen doo donn ndax kat la laa yarisuna illa man yaxmilu sayfa wa yaxmil bayida koo xam ne si ne du ŋàbbu jaasi di xeex ñu ne kooku du donn loolu arab yi doon wax lislaam ne axakay jigéen dafa amub cër lirrijali nasibun mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun wa linnisaai nasibun mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun mimma qalla minhu aw kasara mafruda jigéen de am na cër ci li waajuram ay waajuram bàyyi ni ko góor ame moo xam lu néew la moo xam lu bari la jigéen ñu ko doon denc ci anam goo xam ne si ne tegewut ci yoon amut limite lislaam ñëw ne axakay dafa am yemukaay yamukaay fankixu maa taaba lakum min annisaai masna wa sulaasa wa rubaa fa in xiftumu ala taadilu fa waahida jigéen doonoon koo xam ne si ne saa yu këram faatoo ka gën a mage ca doom ya moo koy donn na muy donne ñeneen ña walis waajuram ka ca doonul yaayam daal soxna yam yépp da ciy teg loxo ba mu des waajuram mu doonoon koo xam ne si ne it bu yàlla dogalee boroom këram faatu it ña gën a jege boroom këram ci ay jege ñaale ñoo yor kilifteefam su leen neexee ñu soxna woo ko su leen neexee ñu maye ko sunu boroom ne déedéet yaa ayyuha alladina amanu laa yaxillu lakum an tarisu nisaa karhan wala taaduluhunna li leen leen a jël ak di leen donn ci force waaye day am aw yoon daal di tëral yoon woowu ne wala tankihu ma nakaha abaakum min annisa li seeni waajur dencoon ci ay soxna daganatul ci yéen ngeen di leen soxna woo loolu lislaam moo ko dindi bi nga xamee ne ñëw na mu fekkoon ñu doon mu doon koo xam ne si dañ ko doon gas suul ginnaaw boo xamee ne ñëw na ci jamono ndax jàpp ne gàcce la sunu borom ne déedéet loolu de mbir mu ñaaw la mbir mu ñaaw a ngi noonu di jël sa doom di ko suul ngir ne dafa doon jigéen indi ci ay aaya yoo xam ne si ne yu bari la jigéen doon koo xam ne si saa su ko borom këram masaana bàyyi su ko neexee ma ne ko bàyyi juróomi yoon ay yoon yoon ci bis bi jëlaat ko nu ko neex la koy fayle waate te du saña bañ suñ borom ne déedéet wa ida talaqtumu nisaa fa balaxna ajalahunna fa amsikuhunna bi maarufin aw sarixuhunna bi maaruf yooyu yëpp doon yoo xam ne siine lislaam moo ko indi joxaat gëdd jigéen joxaat ko xàqam bi mu dikkee it wan ñu kan mooy moom neñu jigéen mooy yaay jigéen mooy soxna jigéen mooy tax xeet wi baax ba muy dënkaane sax wa wassayna al insaana bi walidayhi ixsaana kum ca teg xamalathu la wax ummuhu kërha bi mu dénkee nit mu rafetal di ci digganteem ak ñaari waajuram muy góor ak jigéen waaye jigéen la setteewaat wax moom lan moo war a tax dëgg-dëgg ñu war a rafetal ci moom muy gëddaam boobee mu doon koo xam ne borom bi fonk na ko ba sekkareem yi gën a dencu yi mu gën a fonk ci moom la koy jaarale kon loolu lislaam moo ko jox jigéen naka noonu it mu joxe misaal ba tàyyi ci jigéen ay tànneefam yoo xam ne jaar nañu ci kaw suuf ñoo xam ne si am nañu cër ku mel ne ki Asiya nga xam ne moo doon soxna firawna borom bi subhaanahu wa taala joxe ci moom misaal ku mere mel ne Maryam bintu Imran nga xam ne siine sunu borom ja tànn gum ko tànn ak baax gum ko baaxal tax mu jaaral ci moom ab yonent naka noonu bokk na ci tànnee fii jigéen ñi ku mel ni ki Khadija bintu Xuwaylid nga xam ne si mooy soxna yonent bi sallallahu alayhi wa su njëkk nga xam ne siine ne euh, xettali na ko fu baree baree baree bari indil na ko ay solution ci jamono bu nekk ba tax yonent bi sallallahu alayhi wa fonkoon ko teg ko foo xam ne si ne néew na ko mu fa teg di ko waxtaanee lu bari bañ koy ba ko soxna sa laajee sax ngir ne ko doo fàtte kooku ndax faatu na bu yàgg ay yàq rek a des ca moom daf ko wax ne ko ba ma ñëpp bàyyee moom rek ma bëgg ba ma gisul kenn moom rek laa gisoon te moom it laa amal njaboot kon loolu wane na ne. lislaam moom yàgg na fonk jigéen yonenteb lislaam yàgg na fonk jigéen naka noonu bokk na ci Aïcha bintu Abi Bakrin di ummul muminin nga xam ne si ne yonente bi sallallahu alayhi doon wax ne xusu nisfa diinakum min hadihi l humayra na ngeen jël seen genn wàllu diine ci soxna si ndegam jullit ñi saxaabatul kiram yi nekkoon ak yonente bi sallallahu ñoom la ji yonente bi doon wax ne seen genn wàllu diine jël leen ko ci moom kon jigéen yàgg naa amul cër yàgg naa bay aw laccam naka noonu bokk na ci ku mel ni ki umu salamata ñooñu ñëpp nga xam ne si ne moo solutionné yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci Hudaybiya ba jafe amee yonente bi xelam xaw ñaaw ci digganteem ak àndandoom kooku moo ko indil solution kon jigéen yàgg naa taxaw ci xeet wi yàgg naa taxaw ci jamono fekk mu lëj mu indi génn dindi jafe-jafe yi nga xam ne seen moo fa moo fa nekk ñooñu ñëpp boo leen toppee ñu doon ay bennat bennat di mbooloo yoo xam ne mënees na leen a lim ngir seen taxawaay asma bintu abi bakrin moom itam nga xam ne seen mooy waajur abdullah ibn zubayr moom itam ku ne gis na rôle bi nga xam ne dina joué na ko ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gàddaay jóge màkk jëm madina taxawaayam boobee de bari na lu mu lu mu indi ci saafara ca la naroonam indi jafe-jafe ba yonent bi dakkantale ko xëy ne ak ci ñi nga xam ne si ci ñoom ñenn ñu doonoon ñoo xam ne ay docteur lañu woon buñ masaana dem ci tooli xare ñoo doon ñoo leen doon faj di dimbali ñi nga xam ne si ñoo loru di togg ay ñam di leen joxe di leen jox naka noonu boo ko toppee mu doon mbooloo moo xam ne si li leen yàlla defal ci ay ngëneel mënee su lim mënee su ko lim kon ay tànneef yàgg jigéen yàgg na koo doon ba boo ñëwee ci sunu réew mi ñu di ci settee ñu bari danañ leen lim waaye léeg-léegi ñiy lim ñooñu ñuy tuddal wax dëgg du noon du doon ñooña waaw ñooñu ñuy tuddal du doon ñooña ndax ñoo njàmbaar gañ wane léeg-léegi dëgg la ci jom lañ ko doon teg waaye nag euh, tënku wutoon ci lislaam waaw nit ku xarook ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu baree bari jom la doon wane rek ak bay saw laaj waaye dëgg-dëgg am na ñuy war a tudd manees na cee tudd ku mel ni ki nga xam ne si mooy sayyidatuna Maryama Bousso walidatu Cheikh ku ne xam ne ak ràññikoom ak ni ñu koy tuddee ak ni mu mel ak liggéey bu mu liggéey nga xam ne si sëriñ bi ki ko taawu defaral ko ab yanam ba mu agsi fi moo di soxna soosu te liñ koy lim buñ koy nataal sax dañ koy nataalee mel ne ku am juróom-ñaar fukki at mbaa lu ko ëpp te fanweeri at rek ak ñett mooy li nga xam ne si ne moom la am doon koo xam ne si ne mokkal na alquran doon ko jàngale te loola it tàmbalewut ci moom ca waajuram la jóge moom itam waajuram mooy ka nga xam ne si ne ca moom la jànge moo ko jàngal alxuraan jàngal ko xam-xam ba mu xam loolee dellusiwaat ci kër indiwaat résultat bu mel noonu kon bu ñu defaree jigéen defar nañu xeet wi waaye bu ñu sàgganee jigéen yàqu xeet wi yëpp dafay daldi di dafay daal di sànku kon dal xam naa kon dal xam naa li ñu bëggoon a indi ci mawduu bi xaju ci euh, te waxtu wi jot na dañuy tënk foofu rek ba beneen yoon xëy na bu ñu ci dellusee incha allah danañ ko gën a mën a faram-fàccee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.